daa am maanaam eh, kii nu eh, ñu doon wax. kado boo xam ne ko da koo andiloon suñu xaari mbaq xasaay bëgg ñu joxal ko ko. ci baraw suñu sàmba.

lii nag dañ koo def rek nee na lii dañ koo def rek ngir jëmmi sëriñ xaadim nii ngir jëmmi sëriñ xaadim mbàq ndax sëriñ xaadim dama ne man du wax ci moom parce que matuma ci moom seede man ndax dafa am fu ma toll ci moom ba sama xol mënu ci di wax ci moom waaye li may sàkk mooy ne ko ñëpp ñaanal sëriñ xaadim mbàq mi yàggal sëriñ amiin amiin ndax sagub yoon waaye sagub murid waaye sagub waa Tuubaa Mbeela la sëriñ xaadim lii muy def di fu yomul xoolal saa bu ñu jógee muy ànd ak ñoom sol aw dàllam ba keroog siyaar bi jeex mu soog a ñu dikkal te nag du ko ne kenn la ma waxoon dem ci groupe bi laa ko waxaat du ko ne kenn fa fa fu waay tollu baax toll na fa baax hmm. tey jii lu tey jii ku ne xam na ne kilifa la la bu ko neexoon tey toog ci këram ñu xaar ñuy jaar fa siyaare ko waaye de deful lool dafa am bàyyi da tëj këram taal otom ñu ànd ak ñun siyaare hmm. kon ñu ngi koy ñaanal Mbàkke yàlla na fi yàgg ci wér suñu xool dafa sedd ci moom ba mënuñu wax ci moom lu bari ndax démb ba tey mi ngi ànd ak ñun siyaar bi ci ay téléphone am ak lim ak li ma wax yëpp mu koy wax kon suñ xaarim yàlla na la yàggal yàlla wéral la defal la mbootum xasida ci barke Cheikh Moussa Mbacké sëñ ji la di ñu la siyaar bu baax Mbacké sëñ bi de xam naa ni yàlla moo ma teewloo lii ndax dama am kuréel gu ma jiite gu tudd Touba xarasana laa taala ma ngoog ñu ko jox kàddu keroog ci waaw kon boog lii moom daa mel ni yéen da nga ñëw feddal suñu mbir kon kon mel na ni waa Touba xarasana laa taala li ñu defoon jëmale ko sa jëmm ji mbàkkee kon juumuñu waaw te it benn mbir daa am ba mu teewee ci liggéey ba léegi dañu ko def nañ ngay suñu jëwriñ ci liggéey bi fi nekk ni dañoo toll tembe ci wax liggéey bi suñu muntaxaa ndax liggéey bu toll ni ci Touba ñu koy def di ko def defal sëñ Tuubaa mu jëm ci murit yi ak dëkk bi dañ lii borom dëkk war na koo yëg ma ne ko bàyyi naa lépp sa loxo damaa toog ba siyaar bi bërëb sans gaal mu toog ba siyaar dañ ma ne dañ ma ne génnal génnal génnal ma génnal yem ci lii kon seer laa ci waram doon kon nag ci turu kuréelu ñun murit gi yëpp international ak turu kuréelu Touba Arsanla Taala ñu ngi ñu ngi ñu ngi bég ci lii bu baax di ko ànd ak yéen nga xam ne da ngeen ñu feddalee suñu jëf waaw lii nga xam ne moom lañ fas ànd ak moom ci xasida yi xam nañu kon gàttanuk sëñ Massamba Mbacke la yaan suñu boobu ngeen defal taw seen jëli ñu ngi lay saar bu baax kii nag moom duñu mën a wax ci moom moom suñu bi dañ koy ñaanal mu yàgg loolu te wér yàlla na fi yàgg loolu te wér waaw lii daal dafa mel ni mënu moon ñàkk bañ a teewe ci taay bii kon ba Mbacke Bari jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf lii moom dinañ ko dëkkal at ñëpp kon waa at ñëpp ngeen seere ni eh, liggéey bi ñu doon décorer sëñ bi nii ci kii bi waa daayira soppe sëñ Mouhamadan moom nag na leen leer ni ànd ngoog mur gépp ndax kii lu ko waaye defal maa bir naa ni mu gépp nga ko defal waaw barke ba daal maa ngi jégalu baax kàddu yi nag ak jërëjëf